lu benn atu yàlla ginnaaw ba maison d'arrêt yi correction yi nekk fii ci senegal jële woon ndogal ngir limite lii di indi añ ci kaso yi maanaam indil añ ñi caabi féete seen ginnaaw ba waraloon nag par weekend la seen mbokk doon leen indil añ ndax li ko waraloon di mbas mii di Covid 19 boobu la ndogal daal dinañ koy teggi ni ki tey ci altine ji ca prison bu rëbës nag ñenn ci famille détenu yi daal dinañ ñëw nag indil seeni mbokk añ ñi nga xam le ni am nañ mbégte bu baax a baax ba tax ñuy rafetlu bi la dogal ah sama rakale laa doon indil añ ni léegi ma laajte ñu ne ma chaque jour la ñuy indi añ léegi bàyyi nañu samedi bi dimanche bi léegi chaque jour ma ne ko alhamdulilah léegi indi chaque jour añ bi dañuy dimbali sax ñu ñuy ay mboqam sax mu baax ñu am lekk bu ñuy lekk bu baax sax seen biir bi ah loolu la ñu ngi siy sant yàlla bu baax a baax a baax boole ko ñu koy ñaanal bu baax ku def lii moom ñu ngi koy ñaanal ci kaw ak ci kanam mu dem ci kanam ndax ñu fi nekk ñu lekk lekk bu baax ndax ay doomu aadama lañu ñu ñu ay seen mbokk ñoo leen war a indi ay añ waaye ñu ngi lekk sax waaye ñun ñi seen i mbokk bu ñu indi ay lekk ñi xam ne ñoom seeni i mbokk ñu ngi teew ñu ngi teew ñu ngi fii waaye ñoom ñu ngi teew te koso tamit nag nekkul bon nekkul dara fii jaar-jaar rek la day defar nit day yàq nit waaye ñun tamit ñu ngi ñaan suñu xare yi bu ñu génnee ñu def lu ñu bëgg incha allah ndax ku ne ñaanal ñu ko yàlla lekk bi moom ñu ngi ciy sant yàlla visite amul problème ñu ngi ñëw nice ñu ngi waxtaan ak suñu mbokk yi nice ñu ngi leen di dugalal xaalis ñu ngi koy jot lekk yi tamit ñu ngi koy jot amuñu fii benn problème waaw lii moom sant yàlla rek démb nag bañ ko yëgee démb dañoo kontaan am na ñoo xam ne bu bëri tamit yëguñu ko waaye lii moom ñu ci sant yàlla bu baax a baax a baax mu gën a sax mu gën a sax ndax feebar bi moo taxoon ñu teree ko fi xale yi tamit di jàmbaar la ñuy dugal añi tamit jàmbaar lañu ku ne amuñu seen fay ndax danga fiy dégg lu la ko jox ma nangam ak nangam waaye tamit ñu ngi sant yàlla. Euh, avant tout damay saluer ñëpp maa ngi nuyu képp ku fi nekk rek ndax. dadi loo xam ne jombul kenn ku nekk a ngi ci biir ku baax a ngi ci biir ku bon a ngi ci biir yàlla nag destin wu doomu aadama kenn mënu ci dara euh, sama ñaari doom laa ñëwoon seet si fii tey ah man de tey ni ñu defee neex na ma trop parce que dañ na woon weekend ba weekend samedi ak dimanche la fi lekk doon ñëw tey bu demee ba ibbi pour détenu yi di jot seen lekk normal alhamdulilahi rabil alamin loolu rafetlu nañ ko torop rafetlu nañ ko torop di yàlla bu baax ci loolu ñu def pour ñëpp di jot seen lekk. bon lu ma fii doon dama am suma benn jarbaat bi nga xam ni moo amoon jafe-jafe ma ñëw indi si koon añ waaw moom yàggu fii nag ah, moom yàggu fii parce que 15 jours lañ ko téye pour 15 jours lañ ko téye. ah lekk yi nag wax dëgg yàlla man di lu ma gis moom boo ñëwee dañ lay orienté. fan nga war a dem ak li nga war a def nga def ko lekki yi dañu ngi koy yóbbu man def sama bos de wax dëgg yàlla maa ngi koy yóbbu su ma ñëwee ñu orienté mu ñu jël yóbbu loolu daal laa ci gis man. ñoom nag ñu ngi xam xamle ni dinañ ñëw ci heure yu wute ngir indil seen mbokk lu ñu lekk. des fois nag matin la ak soir des fois matin kese añ bi ndékki bi wala añ beeg reer bi waaw. non man su xam nga mënoon nekk trois repas parce que ñoom am nañ lu ñu fii dañ dañ fiy lekk. am na li nga xam ni ñoom prison euh, prison bi daf lañ koy defal mais lekk ñuy lekk nag c'est pour changer peut-être seen seen lekk ko loolu moo tax presque ñuy ñi ci pare di indi lekk mais ñoom ñu ngi lekk ci biir parce que wax nañ moo ko am nañ seen lekk dinañ ndekki dinañ añ dinañ reer man heure yi rek ay midi midi midi et demi et treize heures naam sax jafe-jafe du ñàkk ci seen diggante ñoom famille détenu yi ak waa administration pénitentiaire waaye terewul ñu ngi rafetlu bu baax a baax seen liggéey bu buñ sukkandikoo ci ñoom ñi lee waa loolu mun ta ñàkk parce que seen liggéey la ñu nekk te nit doo ko fekk ci moomeelam di ko nangu loolu mënut a ñàkk des fois fu nekk fooy dem rek da ngay am dina am jafe-jafe am lu dul jafe-jafe loolu mënut a ñàkk ku nekk ci liggéeyam rek respecté ko ci liggéeyam bi nga ko fekk Euh, ay nit lañ soo leen fekkee ci seen liggéeyukaay soo waxee ñoom ci dal ak njekk ak teraanga dañ lay wuyu ñi fi nekk kenn soxorul kenn bonul ñi leen yore nii buñ soxoroon wala ñu bon nguur du leen fi teg wax dëgg fa yàlla ñu baax lañ ñu mën a accueillir doomu aadama lañ ci kaw nag doomu aadama bi xam moom mooy kan. déedéet mosuñoo réservé fa dëgg yàlla mosuma réservé saa ba suñu añ ñëwee day dugg xaalis day dugg. visite dañuy gis suñuy mboq waa man de gisuma ko fa dëgg yàlla sama rakk am na fi deux mois te man gisuma ko xaalis boo fa indee da nga koy dugal gratuit xaalis lekk bi tamit gratuit ñoom ñiy dugal lekk bi sax dañ lay waxtaan ak yow dañuy kaf ak yow reetaan ak yow ba sa mboq sa lekk dugg kon nag loolu ñu tamit ñu ngi ciy sant yàlla te bu ñu fas sent kanam fas suñu seen kanam ñu ngi waxtaan xal indi añ ñu ngi ñuy dalal. te buñ ñaxoon bañ ñu fee fekk. yóbbu añ bés bu nekk ca prison bu bës daal dinay dooraat mu mel ni ñi caabi féete seen ginnaaw dinañ mën di jot seeni añ bës bu ne waaye bi la ndogal dafa mel ne ñu bëri yëgaguñ ko.